ndax li bu bind Montaigne bind ko ak Ronsard ak Pierre Corneille wala Joachim du Bellay ndax dañoo gën a xereñ sëñ Moussa sëñ Moussa Ka leen man li mu bind kenn xamut lu mu doon bind nañ lu nekk ku mën a dem bay bind ba xam meññeet yi saxoon ci bawol mu bind ko ci aw wooy wooy ni mu jafe Cheikh Samba Diarra biñ ñee ko yan meññeet a fi sax sëñ Moussa Ka rek uh-huh. mu daal di ubbeeku daal ni béppun newun ngigisun kàddun daqaarun wa féex sumpun xureelun wa xël ron rëb-rëbun ngeeru démbun wa déemun wa looro soono népp ni bu haa sengun bi béntaña rand darkasun yiiru ratun wa wuulun wa kawsun guy wa mbéy gila haa foftan wewen sawat sab-sab ak sa biiru garab yi lay wax garab yi te ko way ci waaw ci aruut nga xam ne dolloo waaw ci ñu jàng misaan bi ci xam-xamu ilmul aruut garab yi nekk Kajoor ak Bawol mu yooyu lay jàmmante fanweeri garab ak ñett mooy xoolal bi muy woy njuuj njaaj sëñ Abdou Samad maa ngi koy ziar mu sëñ sooy bi woy wu mu bëgg la fu mu bëgg seen ma waxal bale bale njuuj njaaj booba day doxantu guddi dégg ñu yóbbu benn séet naan ku ànd ak ki ñu àndal lu la neex laaj ndax jigéen ñi bu ñuy yóbbu seen mbokk dañ koy taaral ku ànd ak ki ñu àndal lu la neex laaj rawatina bu fa fekkee wu jëm sëñ Moussa dégg ko rek hmm. sëñ Moussa dégg loolu rek mu def ko xaal mu ni ñii xamuñu ki ma àndal man. ma dëgg la. daal di wëlbati léegi taasu loolu taasu la. Mhm. mais xeerañam a tax mu jël taasu. def ko woy. Mhm. déedéet moom jublu ci foo da koy def woy moom. ndax nee na homme de tenue bii maaj xam ngeen maaj. ni muy mhm. maaje. boo ko seetlee kuy julli ñoo niroo ay mouvement waaye maaj dara àdduna la waaye julli nag yàllaa ko digle. mu ni kon tam nit mën naa jël taasu créé ko ba muy woy wu rafet da am maanaa boo ko woyee sëñ Tuuba mm-hmm. mu daal ni mm-hmm. dafa dégg jigéen ñi dem ni ku ànd ak ki àndal lu la neex mu gestuñu leen sëriñ jara àndal bu leen njuuj njaaj daal ni ngeen déglu ma dellooti fent ab daaj eh. ba zaayir sa di baatin jullee gënuk dëgg la damay wëlbati mboolem wayi ni soodaan ba feem yépp di baatin bu jar di seetaan dama romb ku céetal mu naan ma kaay laaj ku jiital ki ma jiital lu la neex laaj ma seet mbir ma mu jiital jarul ay ngaañ ma faf jub ni ko tuubal malaaka day gaañ te ànd ak ki ma àndal lu dem ba Touba te faral jébbalu moo gën torox su boobaa defal ànd bi yàlla sëriñ Touba ba yonen bi sa wommat nga jublu Touba ilaa baari ukum yaa unaasu tuuboo wa koonoo maa cheikh yi lahoo aniiboo mu hayyaa uka badri ne leen ko taaféer xawaa jëw ëru usnin ma may ko téeméer ku séetal ngërëmam de lu la neex laaj da ngay saafu di ceebuy naloo puuj paaj ki lee jar di ko woy mooy xadiimu adnaan te maa di moo saleng lu mbaa jar abool faadili xaqan xadiimi taaxa wala sibtu habibi wa naa la jaaxa satub balla balaa wax ndekam xamoo daam yaaramub sangu mbàkke sangub sëriñ daam caqub kër maaram mooy diggal ba nuy raas dëgg la ya teew ak ñu fi teewul asal du seen maas ma way ndaama la gàttun te gétti waa faas te raw yaara bu faas ak rijaalu muk naas ala lam tara ay naaya mis la cheikh yi kamaalan wa jamaalan azala waski sëriñ bamba du seen màppandoo du seen maas na ngeen déglu mbindam mi borom aras maas mbirum jës wala mu wax danaa ko njàmbaas ba ngeen xam ne sëriñ bamba laa diram mbaas sëriñ bee jarawooy mbàkke mooy ayoo taas damaa yëpp ci saxaaram te laaju may paas sëriñ bee ko niroog moustapha ba cib móol te deexul wanguloon si taxul ba di ñoom sëgaa yum ti jàttay na muy jateg maar a mbaatam daabla jërëjëf réyul tuutiwuloon gàttuloon ba di tuuñ bu daa ree du ko kekkul dadaa saxoo dem ba mu yàgg mu ni fitam waa gën a rëy mel ni am du jàmbaar mm-hmm. amul soxla ci capitaine wëree bi soldaar daal ni borom taar bi le semmal na saaru mbargaan tabaaraka ma jàngal ko saaru furxaan bu tawreetu ñëwaatoon mu far di Musaa bu injiilu ñëwaatoon mu doon na Isaa sa géeju xekkamit raw na géeji Luqmaan sa waxtaanu xaddiis it sewal na ndoxmaan xasaayit yi nga taalif mënee su ko móol ajaayib yi nga feeñal mënee su ko jeel daal di sa mbootum xalimaaraw da buusu musaa te way deeye nga dekkal tewoon na isaa nde koo tifle sa lor wi tufal ko busra mu tàggoog lor yi dun yaaka zaaka oxra la nooyin yebe gaalam nga fulku mas oon la saawaay defi taalif ca fulku mas oon la ibrahima def taali gaa yi nemrose nga def gaa yi doon wax ko maa ki même chose maqaamaatuka xaabat li man tajalla anil jiili fa waylul li man tawalla karaamay tiijaane sa tàmbatil peeñ maqaamam jaylaani ca ban wa ngay xeeñ maqaamam juney dëkk mbóoti tay fóor ci sax raw nga ko làmboo tax ci laa karaamay wàllu yéy sa mbóobitum néeg place yi ñu war a màggal la say goney toog kooku kooku. jërëjëf te te Ablaye ah. dama ko eh, ñu déglu Ablaye Lam. waaw jërëjëf. ñu dé ñu déglu Lam. Ablaye jërëjëf <laughs> euh, yaakaar naa tontu na laaj bi nga xam ne moom la. waaw waaw tontu laaj mooy. est-ce que jotul nag ñu jàngale sëriñ Touba. ci daara yi. loolu la laaj laajoon euh, Ablaye. ak itam des na. waaw euh, uh-huh. indi nga léegi mbedd yu tuddee Serigne bi. Mm-hmm. waaw ak mag ñu baax ñi. Mm-hmm. jot na. ñaari ñaari rakkay ndar yi ñuy julli place Faidherbe ba. ñu tuddee ko sëñ Bamba. buñ ko ko tuddee wulit moo ko yeyoo. dëgg la sëñ Ibrahima Diop Masar nee na ko laxat aqamta bi ndar. waaw kay bay. xiinan tuzilu biha. Hmm. daa adalaay min ahli shakki wal bi nga taxawee ndar nga daaneel ay fen. kay bay daaneel kéefër. yëkkati islam ci biiru gouverneur. kon jot na ñëpp xam ne yaa yëkkatee islam biir ndar. ndar la ko taalibi seex bu mag. di sëriñ Modou Ndiaye maa béy. man Ndiaye ñàkk ki ñaanta baax. dëgg la. xoolal li mu wax Serigne Touba. inni uwaddihu xillan maa ujalisuhu illaa wa zuziya an qalbi bihil kasalu inni uwaddahu inni uwaddihu nadban aaliman wari an man in adatta siyuuqal jiili fal awalu nee na tey maa ngi tàggoog sang boo xam ne mësumaa gis jëmmi sëñ Tuubaa lu dul gën naa sawaraat sama digganteeg sama borom tey maa ngi tàggoog sang boo xam ne xaadimu rasul su ma doon lim kilifay jamono yëpp moom laay lim premier te du ma ko wutal day lii wax ju rafet la aman njaay maa bi kon ndar hmm. la sëñ Touba yëkkatee islaam dëkk la te kat sëñ Abdoulaye laam hmm. dem nañu tey ba ndar lañ koy maggal le 5 euh, septembre 1895 hmm. am na dëkk bu nekk Amérique defe naa en 2015 fayal lañ ma bee ba fekk leen fa defal leen conférence ci Serigne Touba ndax booba dëkk Saint-Louis la tudd Saint-Louis Missouri nga xam ne ñoom Saint-Louis gi rek a tax ñoom comme dëkkee nañ ko mhm. ñun dañuy màggal bis bi sëñ Tuubaa defoon Saint-Louis bi ndax ñoo bokkatul mhm. kon jot na li nga wax mhm. ñu joxaat sëriñ Tuubaa àqam te xam ni sëriñ Tuubaa du problème mu tarixa déedéet déedéet sëriñ Tuubaa du problème mu deru nit ku ñuul nii la mel déedéet sëriñ Tuubaa toggam mii da koo yekkal képp ko am ruu ndax bi muy ñaan kat yemalewu ko fenn dafa wax ni yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jami alwara yaa hëdi yan radaa dëgg la yàlla koo sàkk mu am ru na nga ko jéggal kon kooku yéene na ñëpp njéggal li nga war a laaj muy concorde tam social bu mhm. ñu war a ànd nekk benn mhm. sëñ bi def ci liggéey bu am solo sëñ Abdoulaye Lam waaw mooy deuxième partie bi euh, ñaareelu ponk waxtaan wi muy concorde euh, euh, sociale waaye dañu wax ne boo joxee sag ndaw sunu boroom mu téyel la sag mag waaye cheikhul xadim ci yërmandeem ak ci mbaaxam yaakaar naa ne ci tasawudu sixaar mag moo xam ne nii itam sag ndaw dala rëcc yaakaar naa ne sëñ Tuubaa ci yërmandeem wax na ne ndaw loolu ni mag moomu war a daboo uh-huh. ak ak ndawam pour mën a mucc ëllëg te yooyu yëpp dina ci firnde uh-huh. waxuma wax ji waaye jëf na ko am na ñoo xam bi ni ñëw mag lañu am na ñoo xam bi ñu ñëw sëñ Touba ay buur lañu buur dem nañu ba ceddo gi sànq na leen ba faw ñu dem ba gindiku ci sëñ tuubaa ñëw mu def leen ay seex am na ñoo xam bi ñëw ndaw lañu mu yar leen ba def leen ay seex ñuy dimbali ay réew ak i nit. la dokkat waaw ñuy wax Abdoulaat Lo waaw ne mi ngi raag roos di dafa liggéey ay kër. ne jox na la ci kër. ci Touba ca kanam la bokk. Touba ca kanam fu ñuy tukki ñaari maa moomee ànd. waaw ak sëñ Abo Bousso ak sëñ Fallou Ndiaye ak waa Touba ca kanam. jërëjëf Abdoulaye Lo ne jox na la kër ca Lagros. boo xëyee ñu ànd mu woon la ko. jërëjëf yàlla ko yàlla fay. demal yàlla la yàlla fay ci kërug àjjana. waaw yàlla la yàlla fay kër gu mag ci aljana nga dund cent ans boo ba nga dund cent ans sans ordonnance door caataa bi sa kër. de de si sëñ bi. waaw. ma wax ni loolu mu wax. Hmm. yemul ci wax mii da koo jëf. ñaata ñoo fekk si sëñ Touba bi ñuy ñëw di mag. Cheikh Maba Awa Ndiaye bi muy ñëw buur lañ ko nguur lañ ko proposé buur la. waaw Maba Awa Ndiaye. Maba Awa Ndiaye bu Saalum kër Maba. sëñ Touba ne ko bàyyil nguur gépp boo ñëwee ma def la nguur mbër ci nguuru yàlla gi ñëw def na ko tey mbër ci nguuru yàlla gi kon am na ñu ñëw di mag am na ñu ñëw di mbërum làmb am na kook bi mu ñëwee mbërum làmb la sëñ bi dañ ko yow mi doon bëree daan ndax daan nga ñeenti mbër yi. ñeenti mbër. waaw fekk boobu mën na alxuraan lool sëñ bi mu ni sëñ Touba yan ñeenti mbër. sëñ bi ni ko jàngal sootul munaafiquun ba mu àggee ca xaaloo nashadu sëñ bi ni ko xiif taxawal mu daal ni taxaw naa sëñ bi ni ko nashadu ndax xam nga lu muy firi mu ni sëñ Tuubaa bëgg naa koo xam sëñ bi ni ko nuun mooy su bakkan siin su tooy si mooy shahwa dégg mooy seytaane mooy mooy seytaane mooy iblis hël kubéer gi mooy hëwaa mooy bànneex deel gi mooy duniyaa mooy àdduna yow bi doon bëreeg mbër yi di daan ndax daan nga ñeenti mbër yi bakkan soytaane bànneex ak àdduna mu ne ko mënaguma leen daan te mbàkke daanuma leen mu ne kon matoo mbër bàyyi lii lépp ñëw ma àggale la moo tax seex sàmba jaara mbay mi dégg sëñ tuubaa lool ba mu koy woy ci wala falu gànnaar mayit ma wax la mu doon